<laughs> de Adama Fall, responsable affaires Médina, <laughs> membre de la cellule de communication de Beno Bokayakar, Bataille ba tey ci li nga xamantene ni euh, moo soxal actualité ñu euh, addu euh, ci président de la République Macky Sall ñu addu ci journée mondiale des handicapés bi nga xamantene ni ñu ko dimanche 3 décembre 2023 donc mu mel l'instar de la communauté internationale. Le Sénégal également a célébré euh, cette journée. Alors, euh, Adama Fall, démb lañ doon journée euh, mondiale des handicapés et ci ci àddina bi ak fii ci biir réew mi. foofu moom koy mm-hmm. en tant qu'humain. bien sûr. mais dama japp sax ni waruñu am benn journée mhm. chaque jour ñooñu way way dawle yi lañuy wax ah way laago way laago yi dañ leen di dañ leen war di célébrer à tout moment tout à fait euh, war leen mën a taxawu à tout moment war leen mën a accompagner à tout mhm. moment mhm. c'est vrai c'est un grand jour ñu ñu am sur le plan international ñu am benn journée buñ leen jagleel comme ni ñu jaglelee une comme mooy li wax rek journée de la femme pour man dafa war a tout le temps mais saluer les efforts yi nga xamni état def nako ci la carte d'égalité des chances mm-hmm. c'est important parce que lolu dina leen permettre nous bañ leen bedd ci askan bi parce que d'habitude da nga ciy gis da nga ciy gis ku ci amul rek ku ci amul sa biir la mm-hmm. comprendre situation tout à fait des fois ils sont dañ leen ay dañ leen di beddi. laisser en rade et loolu dafay dafay nekk lu nakhari mm-hmm. maintenant cette célébration mu nekk ñu def ko en en très grande pompe maintenant il faut savoir yan disposition a ñu jël concrètement mm-hmm. pour mën prendre en charge leur leur devenir et leur avenir c'est important. Amener ci du parce qu'ils sont organisés hein. ils sont très bien organisés j'en connais des gens au niveau de la mine, Ils Babacar très mm-hmm. ils sont très bien organisés jàng nañ am xam-xam. Mm-hmm. def ba leen accompagner. ba ñoom ñu mën a ci mbedd bi ñu nekk parce que neexu leen di la main. Mm-hmm. vers vers ce qu'on appelle l'auto-emploi ça journée mondiale bi mo quelles sont les dispositions yi nga état au niveau des du FONGIP euh, de la DER et autres. Mm-hmm. pour accompagner ces personnes là handicapées pour les accompagner. Mm-hmm. maintenant il ne reste pas seulement les handicapés et autres parce que handicap dafa dafa moi j'en ai chez moi mon fils aîné. Mm-hmm. quelle est quelle est bonne disposition l'état état pour permettre à cet enfant là mëna jangi absolument c'est pas seulement Talibé Dabo, c'est pas seulement Centre mm-hmm. Aminata Mbaye. Mm-hmm. Parce que c'est un enfant qui a 10 ans, Mounoul Djangi. Mounoul Djangi. L'école spéciale Bifinek, Amoufi. Mm-hmm. Son école, Mini, mingi France. Faut la wara mouna Djangé. Donc, si on les moyens, Khalebi du Djangi. Donc, il radé année scolaire, donc du Djang. Quelle disposition, l'État a wara mouna Djangi à travers le ministère de l'Éducation nationale pour mettre en place un centre boo de ne dina permettre à ces enfants-là qui ne sont pas des handicapés motrices. n'est-ce pas des handicapés moteurs. Mm-hmm. Euh, pour permettre les nous de a dem parce que dañu am handicap au niveau mental. Vous mm-hmm. ngi xam parce que médecins euh, médecin dañ la des métiers demee ci centre Talibou Dabo da koy métiers mm-hmm. soo demee ci beneen centre da koy parce que su n'est xale bi dafa soutenir ñeneen ni sur le plan. Euh, intellectuels su xale des day day pour donc comment naka la ñu pour équilibrer pour mettre en place ces centres là. naka la ñu pour mettre en place des centres qui de ne permettre à ces handicapés là ñu mën fa activités c'est vrai ils s'organisent organisent hein. ben centre bu au niveau de la Médina. Mhm. ñoom ñoo ko créel seen bopp. ok ñoo fa nekk ñoo fay daje yor machine couture des def peinture ak mhm. mais état daf leen accompagner. parce que créer une journée uniquement pour créer une journée à mon sens. créer une journée pour uniquement créer une journée d'être une communication en pompe mon mhm. sens mhm. sort créer une journée mais une communication il faut mettre en place des mesures d'accompagnement permettre les gens de en am taxaway carte égalité des chances mais amna mhm. mais da ni ba l'applicabilité au niveau du transport des des parce que da bus Sénégal de midi yi ils sont pas prévus donc journée bi dafa wara dans l'achat des bus nous war leen ci mën pour partie bi la mm-hmm. c'est important mm-hmm. terre bi sóoraale nañ mm-hmm. parce que y a une peine de partir pour la nuit. dans la vue courante des gens au niveau des parkings ils ne sont pas prévus parce que les handicapés gis handicapé moderne, boo xamante ni mais soo ñëwee doo doo doo am espace booy gaare parce que dañ ko waroon dañ leen waroon réserver des espaces de de parking pour les handicapés. Mm-hmm. des na am na ne war nañ fa demee dans la leen di traité. au niveau des des grandes surfaces au niveau des parkings et autres xamante ne dañ leen koy defal. tout à que yëkkati nañ cër bi jox leen. Mm-hmm. maintenant Sénégal nag foofu la war a toll foofu la war a jëm. Soit de faire mettre en place la carte d'égalité des chances mm. c'est bien mais il faut mettre en place des mécanismes permettre que ñu mën déplacer facilement Nous mm-hmm. mën avoir accès à au service public mm. loolu tamit des ay ay mbir yuñ ci pour mëna ag bon une journée est bonne mm mais jël engagement par rapport à leur situation sociale et économique mhm. moo ëpp solo moo ëpp solo mhm. man je dirais sax plus ana mhm. euh, journée mondiale bi euh, démb on l'a célébré mais je fustige sax euh, ni nga xamante ne luñ ko au Sénégal il faut yow biñ la ko waxee léegi bett na la parce que xalaatoo ko xam nga lu tax ma wax ko xam nga lu tax ma wax la ko li li homme politique yi di ñu captiver sur seen activité politique moo duñu xam lan moy journée mondiale parce que. la ça m'a un peu surpris. bien sûr c'est-à-dire. on l'a célébré hier. on l'a célébré hier. mais ken waxu ci quoi ken waxu ci. heureusement que yéen wax ngeen heureusement que diaspora wax na heureusement mais do toog ci plateau. et pourtant lii moy actualité. actualité actualité. c'est-à-dire da ngay ñeu tok ñu wara lancer fusée fusée mm-hmm. euh, satellite Sénégal. Mm-hmm. on nous parle de rabat d'arrêt. Mm-hmm. première intervention. Ma mère au ah. Sénégal. qui a fait le on nous parle de de Khalifa Sall a été bloqué. Ah. c'est-à-dire intérêt. <laughs> particulier mm-hmm. la ñuy jël mettre ko au-dessus de l'intérêt général mm-hmm. et malheureusement ñun dañuy tomber ci loolu te nous ko nangu mais monsieur Fall politique aussi dafa beaucoup ci dund àdduna c'est là de gérer ça mënuñoo parce que nous, au niveau de diaspora xam nañ ni ñuy traité information mais nous wax ba génn fi mënuñoo ba génn fi je ne parle pas de vous je ne parle pas de vous <laughs> c'est-à-dire yéen yéen da ngeen di wax askanu Sénégal bu nekk bi ak bu bitim réew pour Sénégalais yi xam li xew réellement ce qui se passe dans ce pays là mhm. mais dafa am ci ñoo xamante ni diaspora ci soo demee bitim réew ca diaspora ba mhm. dafa am moment politique am moment boo xamante ni société bi la ñuy waxal mhm. yéen nag ci loolu ngeen tegu mais est-ce que ñeneen ñi ci loolu la ñu tegu. ah ñun xamuñu yeneen kër yi la fa ne. an an ma ñëw fii sànq xam maa ngi koy wax maa ngi ne damay fustiger bu baax ni ñu ni ñu ko ni ñu ko doyee dalee. Euh, banaliser visibilité benn benn benn euh, benn. Euh, voilà benn site ah, benn maison de presse rek laa gis ñu wax ci. donc man mu metti ma parce que way laago yi danoo bokk su ñun monsieur Fall mi ngi koy wax léegi kër yoo dugg bu amul benn am na ci ñaar ku ci amul doo am nga ci mbokk bu nga mm. xamante ne itam dafa dafa amee laago. Mm-hmm. pense que ne nañ leen bàyyi xel bu baax ci dundin bi la ñu bokk ci société bi la ñu bokk xëy na yàlla moo bindee noonu mu tollaay noonu waaye ci loi d'orientation bi itam voté nañ ko monsieur Fall mais dañ ko dafa war a merci beaucoup dafa war a effective ñoom ñuy gis seen bopp si li nga xamante ne mooy dundin bi dem ak dikk bi sànq tudd nga ko mm-hmm. mais dafa des des na lu bëri xam nga dans le cadre de l'applicabilité de de la loi d'orientation mm-hmm. lu président République li mu war a def def na ko Moi mettre en place ce qu'on appelle une loi d'orientation pour mhm. permettre euh, à ces handicapés handicap euh, de pouvoir euh, am mhm. maintenant c'est au ministère en charge de ces personnes là et au ministère yi nga xamné dañ ci liggéey ñoo wara mëna mettre en place ñoo mëna appliquer la loi pour ñu gis ci mhm. c'est-à-dire jox ay orientation au ministère du transport mhm. ne leen le loo leen di defati suba sóor leen ci des orientations au ministère de l'urbanisme parce que y a la question de l'accès à la terre ah, ça pose problème mhm. ah, ah. parce que pour ñom dañ leen di war ñu am suuf te pourtant war na loi d'orientation boobu dañ ci bokk daf ci bokk donc ñoom waruñu leen waruñu sentir ni dañ leen bedd ci askan bi parce que ci askan bi lañ bok entièrement am na loi d'orientation buy def lolu maintenant il faut que ces ministères là travaillent wax ak liggéey ci ba permettre ces gens là duñu duñu sentir sen bopp ni dañ leen beddi il faut que nous aussi au niveau de la population au niveau de la société qu'on les accepte ñu bañ leen marginaliser bañ leen marginaliser déglul bax li mo la wax tam nañ ni des fois do gis tam nañ suñu génnee di sarax tàmm nañ ko culture la mais amna ci ñoo xamanteni duñu def loolu mais fu foo ko gisee yow sa xel ci jox ko dara nga yaakaar dañuy liggéey dañuy liggéey ils se mm-hmm. battent mm-hmm. donc il faut que ñun société bi aussi ñu accepter leen comme ni ñu mel mm-hmm. gis leen ni ñoom dañu am handicap rek te ko gis ci aduna muy dox nak amna handicap absolument laago kay fépp. fépp la koo gis. c'est-à-dire moo xam bu feeñ la wala bu nëbbu la ku nekk am na ko. Mm-hmm. maintenant nag ñoom seen bos dafa feeñ. seen bos bi feeñ dañ leen war a accepter dans la société. Mm-hmm. ñu bañ a sentir seen bopp parce que marginalisation moo gën a metti fuuf. Mm-hmm. le non respect de de la loi d'orientation. baaxul parce que day dañuy jàpp ne ñoom bokkuñu ci société bi. ñu même si ñoom ñu ngi ñu ngi rey seen bopp nag. se battre pour faire partie de la société. est-ce que tu comprends mais euh, dafa des. par rapport à accueil bi nga xamni na mom la len population parce que soxlo ñu yërmande. déedéet soxlawu ñu ko parce que man mi amna handicap bu neubou mm-hmm. kenn gisuko mais soxlo ma yërmande. pourquoi mom mi am handicap bu visible di soxla yërmande soxlawul loolu. Mm-hmm. li mu soxla moy ñu accepter ko en tant que tel. Mm-hmm. c'est-à-dire ñu accepter son handicap. di nekk ak mom di and ak mom di ko accompagner. parce que tay mënu na am jabar bu am handicap. Mhm. dama koy accepter ci lool wala kenn mënu na am mën nga am doom bo xamné tane handicap dafa dafa am lago nga war ko accepter ak lool mhm. man néna la am sama kër ko xamné dafa am lago mhm. mais dama ko accepter dama ko accepter c'est bon donc il faut que société bi accepter lool suñ ko deful dañ ni continuer di len marginaliser journée journée mondial am. té population bi accepter wu ko. motax yeen media yi am ngeen ci liguey bu am solo boo leen ci wara def pour par par de responsabilité pour expliquer à la population que ni ay mbinda mbindaafun lañ comme ñun mm-hmm. mais mais mais monsieur sànq tout à l'heure yaa nga nee nga ne ministre bi mu ngi non dama ne ministre war nañ ci liguey war nañ ci liguey le ministère du transport à travers la direction des transports ak ay direction Dakar Dem Dikk war nañ ci liguey wala ministère de l'urbanisme war nañ liguey pour mën permettre mm-hmm. à ces à ces personnes là mm-hmm. ñi nga xam dañu am handicap ñu mën accéder, facilement, à, facilement mm-hmm. au service public. Dans le cadre du recrutement de la fonction publique aussi, a une discrimination positive Il y a mm-hmm. Beaucoup de sorti les questions qui mm-hmm. ont été évoquées lors de cette journée. Dans le cadre du recrutement, il y avoir une discrimination positive. Dans le cadre des financements, avoir une discrimination positive. Parce que des fois, loi de l'économie, Donc, il avoir une discrimination positive envers eux. Tout à fait. pour ñu baña sentir ni dañ leena ben mais ñeneen ñi baña sentir ni ñom it dañ leen faral ba mu mhm. mais discrimination bobu da fay am solo c'est mhm. à dire dans le cadre du recrutement de la fonction publique dans le cadre du recrutement au niveau des des services parapublics mhm. parce que da fay am solo nga ñeu dugg ci service parapublic nga fekk fa ay walaw ay ay lago ñu fa xam ni dañ koy liggéey par exemple je prends le cas de man fi ma xam ni fa la nek on <laughs> a un ASP qui, qui on a des ASP handicapés ouais. les gens vont me dire lan lañuy def ci sécurité mm -hmm. la sécurité est toujours d'abord mentale avant d'être physique. psychologique psychologique. Mm. est-ce que tu comprends donc am nañ ci ay ay ñoo xamante ci ay chaise roulante. Mm. la ñuy di assurer la sécurité wala di assurer le secrétariat wala di assurer l'année ak la comptabilité ou autre. mais régime bi fi nekk nii depuis 12 ans ñu ngi fi. waaw ba léegi handicapé am ay. je touche du bois Il y gën a yokk. dama dama dama dama dama dama